الذي في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah sëriñ bi ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la massawu coono yi di la feddali suñu wëllëre ndax itam comme ni nga ko waxee léegi wëllëre gu yàgg la diggante Cheikh El Hadj Omar ak sa maam du ma wax sax Cheikhul xadim waaye sa maam Cheikh Omar so nga xam ni moom lañu ko tudde ndax Cheikh El Omar bi muy ñëw fii ci woon ñëw suñu ku tedd ki Cheikhul Khadim bi mu ñëwee gannaaw boobu képp ku gane àdduna moom lañ ko tuddee. te ni nga ko waxee léegi sa maam bi nga xam ni ci moom nga génne di Cheikh El Hadj Omar Bousso loolu rek doy na seede waaye man ak yow tamit ñu am beneen wëllëre nga nekk sama soppe di ko biral di ko wane saa su nekk suñu ñëwee màggal nga nekk koo xam ni tabaarakallaahu yaay suñu jaate gi waaye tamit ñu bokk mission Eh, ñu doon waaj nag boobu ba tey fa tabaarakallaahu ñëw fi si ziyaar si la waaye nag ñëw massawu coono waaye ñëw itam ñaanal la yàlla yan mi nga xam ni moom la yàlla teg sa kaw yàlla woyofal ko te xam nañu ni dana woyof ndax itam yan boo xam ni ay mago ko yan muy yanu ku tedd ki Cheikhul Xadim ku fi ñëw itam yeesal boobu yan ci yow waaye yow itam nga nekk koo xam ni ku tedd nga ndax itam te tedd nga paaseetul nga yanu li nga yanu mu diis lool mu am ñu mu neex am ñu mu naqadi waaye yàlla dogal sa sa tedd nga tax na yëgoo ñi mu neexul ndax xam yi la yàlla defal kenn mësula dégg ci lu ñaaw kenn mësula dégg nga tontu kenn mësula dégg nga jëf lu ñaaw kenn mësula gis nga jëf lu ñaaw loolu yàlla la ko defal waaye nag loo xam ni xam nañu ni lu jiitu woon la bala ngay sax ñëw ci àdduna mag ñi loolu lañu xentu ba jox la liñ la jox ndax mag ñi duñu yan koo xam ni du yow àttanoo liñ la jox te àttan bi ci gën a am solo mooy bi la yàlla defal mooy as-sabuuru waaw ku nekk xam na ni muñkat nga ñun xam nañ la bu baax yàgg nañ jëflanteek yow waaye ci niñ la fekkee rek noonu lañ si cofeel googu lañu am suñu diggante te xam naa ne itam noonu nga mel ci man moo tax tey bi ñu waxtaanee fa ma ni daal lu mu xat-xat dinaa ñëw ba nga gis nii ñoo ngi ànd ak yow ci liggéey bi donte sax màggal gi ñu ngi ñëw te su ma ñëwee màggal gi fii fii su kilifa diine yëpp fii teew waaye da naan kàddu gi dañ ko jox Serigne Cheikh Tidiane Tall loolu rek day na teraanga te loolu yëpp xam nañ yow la suñu teewee ci kanamu sëriñ bi loolu tamit lool noonu lay demee kon nag ñun si suñu wàll baax na ñuy ñëw nga ñuy gis ñu xam ni wax dëgg yàlla liggéey bi ngi nekk ñu ngi si ànd ak yow ndax xam nañ ñu diis na xam nañ ni yàlla la ko yanal. waaye nit su nekkee ci tool di fa jàmbaar baax na nga ñëw ni ko jaajëf sëriñ bi te loolu nag liñ koy remplacer mooy di la ñaanal yàlla bu baax kóolute gi mag ñi am ci yow yan na yàlla yan ko yàlla yàggal yàlla may lu gudd fan ak wér ñu ñëw nag tey ànd ak suma goro bii di alxaaji Mamadou sekk soo gisee ma tànn ko pour ñu ànd dafa nekk nit ku baax di jàmbar lool ci wàllu domaine bi mu nekk di éco eh, yore nekk promoteur économique fa tabaarakallaahu nekk ci liggéey bu rëy ci wàllu luy jëmale Sénégal kanam waaye mu nekk tamit koo xam ni ku bëgg diine la nekk tamit xam nit su nekkee sa goro kooku mu loo am lu baax war nga ko moom nga ci war a jiitu moo tax ma bëgg tey ànd ak ma ne da ngay ñëw si sëriñ bi mu boole la ci njaboot gi boole la ci xarit yi nga xam ni kii bokk na ci yow. moo tax ma indi ko tey mu ànd ak yow mu nekk nit ku baax nag ñu àndak ak tamit suñu wëllëree xaaj Jibril Ba moom itam di suñu wëllëree di suñu wettal di suñu lépp rek waaye boobu ba tey tamit ñu ànd seeg tamit suñu wëllëree bi xaaj xaaj Nasir moom moom moom moom huwal wasit moom huwal wasit na nit ku yàlla baaxal la bis mu nekk mu jotal ma nuyoo ni ma ah sëriñ bi sa soppe baa ngi lay nuyu de. waaw wax ju rafet wax ju baax fu mu toll mi ngi dox loolu fu muy jëm rek ni ma ah sëñ bi sa soppe baa ngi lay nuyu woo ma téléphone sa soppe ñaanalal sa soppe bi waaw sa soppe bi tamit war ngeen di nekk ci wetam di ko di ko di mu leen di gis ndax loolu dana am solo ndax moom sa soppe la mu ne ma sëñ Bachir sa soppe la te heure bu ma desee ak yow nga ne ma sëñ bi dama la sopp rek loolu nag dafa rëy ci ñun sëriñ bi nga xam ne ñun itamit noonu la ñu toll ci yow nga xam ne ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax sa waajur ba Thierno Mouhamadul Bachir di sa soppe mi ngi lay nuyu Thierno Bachir Tall di sa xarit di sa di sa soppe di sa way jur ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla di la ndokkeel ci yii nga nekk di ñaan yàlla itam màggal gi ñu jëm ñu fekke ko jàmm kenn bañ a manqué waaye tamit yàlla defal la ci wér ba defal wér itam gudd fan suñu xalifa bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi yi. waroon nañu sax bañ a jël kàddu ndax yow soo teewee rek dugal nga ñu ci biir waaw su ko defee nag ñu ngi lay ndokkeel di la ñaanal di la wax ni daal soo ñu gisee soo ñu gisul ñu ngi ànd yow soo ñu yëgeeg soo ñu yëgul ñu ngi lay ñaanal yàlla yann yàlla mottali yéene yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay delloo am nuyoo bu baax di la wax wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha kon ñuy jéem rek seet nu mu gën a rafet rek ci nuyoo bi jëmee ko ci yow ak mboolem délégation bi nga àndal bépp te buñ ci tuddee sa goro sëriñ Mouhamadou Seck tudd ci eh, Ahmed Saloum ak ah, Thierno Jibril Ba ak mboolum ñu ngi àndal ñëpp di bég bu baax a baax nag ci tànk yi ndax lii moom tànk yi dëgg la ndax bis bi seen bis la at mu jot da ngeen koy àndal ñoon fu bu la fekku ci tukki rek yaay ñëwal sëriñ bi ci teewaay bu rafet ndax nit danañ ko yónni sax nga xam ne ndigal a ko yëkkati waaye dañ waaye nag boo dikkee yow dañuy xam ne mbégte nga àndaale ànd ko ñun yëg-yëg boobu nag lañu am suñ diggee yow ci cofeel akuk jàpp ak dila xoole sa bëtub maam mooy Cheikh Oumar Fouti ndax moom réew mépp xam cër bi ko yàlla defal Serigne Touba tudd na ko ci ay téeréem wa kaana sha'nuhu ka xawli umra man bittuqa wal ilmi qad ta'azzara daal di tari baydoo ukun isa fi salaati ka misli saxsin kaana fi rifaati kon noonu ma la ko waxee rek bi muy wër ba agsi Mbàkke ci la gis leeru Serigne Touba wax leen ne leen kooku bu agsee yéen ñëpp na ngeen topp ci ginnaawam ndax ku topp ci ginnaaw rek da nga mucc tey da nga mucc ëllëg kon moom borom basiratu la woon ma xam ci moom lu at moom itam yàlla def na suñu Saliou daan wax ne ku judd ci Mbàkke rek moom leen di tuddee sama maam man mii Cheikh Omar Fouti Cheikh Cheikh Bousso moom suñ bàkk bu soo ñoo bokk ndey ak bàyyi moom lañ ko tudde bàyyi saaw sa ca bokk kon kóllëre gu dëgër moo dox ci diggante bi ñu fi jaar ñëpp nag sàmm ko di ko rafetal ba mu agsi ci Ceerno Basiir ñu ko ñaaral gudd fan ak wér ndax bi mu diggante bi rafete woon rek ca alxaaji Cheikh Nuur ba mu agsi ci moom Ceerno Muntaga ba agsi ci moom gën naa baax gën naa rafet ci cofeel ak jàpp ak yëkk waaye yéen itam ngeen jàppale ko ci liggéey bi taxaw ko ci rafetal diggante bi innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon cant ak ngërëm ni ko yëg-yëg bi ñu ci am suñu xol mu ne su ko làmm yi mënu ko tudd waaye ngeen ngeen xamal ne bëgg nañ bu baax yàlla na seen yoon dugg ci istajibu lillahi wa li rasul iza daakum lima ndax dundal lislaam la dundal ak bokk la te dara génn ci lislaam di la beral sa cantu bopp nag ci sa cofeel ci ñun sa jàpp ci ñun sa bëgg Serigne Touba bëgg yoon wi ak sa baax nag ak baaxam yàllaa koy jagle nit moo koy defal ku ko neex ku la gis sa gis ko ci sa xar kanam gis ko ci sa jëflante nga xam ko ci sa jëmm kon nag ñu ngi fàttali kóllëre gi bu baax di ñaan yàlla sàmm ko bañ yàgg ko joxalante yàgg ko jëflante te waxtu wane muy gën a rafet di gën a baax. ñu ngi sant bu baax di bégee dikki gi bu baax ndax lii moom wane na ak yëg la ndax xëy na nag xam nañ ne danga màggal si waaye tey dangaa ñëw rek ngir gunge ñu ci liggéey bi ak rafetlu ko ànd ko ñun loolu nag rafet lu nañ ko bu baax a baax ñu ngi ciy bég bu baax di la yóbbante cant ak ngërëm ci mboolem njabootu ko Cheikh Omar Fouti gépp bayuñ kenn bayuñ kenn ñu ngi leen ñaanal bu baax di la berlaatu cant ak ngërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر